yow man yow man mënuloo comprendre yow caat yow benn affaire. waaw mais xam nga caat yow bu ko tey mu yow teg la bët moo jafe. yow yaay waaw mais gars yi ci mission yi rek bàyyi xam nga rek booy tax dëkk bi moo dëgër booy yi. non dëgëraay dëgg moom boo koy misaal boo koy misaal comme concert man góor jazaaka. booy concert laa dem booy amul benn jàpp booy yi. foo ma toll man góor dafa waroon noppale ko. waaw mais wax ma loolu de. waaw sa gan bi yaas bu waaw. asalaamaaleykum waaw yaas boo ko dafa doon instant bi moo ma. salaamaaleykum. maaleykum salaam. na ngeen def. sant yàlla moom bëri. mbaa ngeen si jàmm. Eh, père ak si leen. waaw ah, <laughs> jërëjëf. ma nekk yàlla bu baax. maa ngi ko toog ma nekk yàlla bu baax. maa ngi ko toog leen def. sant yàlla bu baax. na koy tëj waaw lu xew. Ah. sama xanaa nag sa bàyyi bu lay jox ma ko nga war ko jox ma ko sax. waaw père ak yow. sant yàlla bu baax. na ngeen def. waaw mais xam nga mais 31 ah. bi gaañ ba léegi fekk boo dara def baax. waaw avec Ndiaye Kharagne tout est ah. naa la salaamaaleykum. salaam Soxna Ndiaye. ñu ngi lay bëgg a bëri de waaw Soxna Ndiaye fii mooy këram de dara soxna ngeen hmm. bi léegi am nag am na ma jox quoi. ah loolu ne war ko traiter. mais xel du doy nag xalaatam du doy. Ah, ah bu la neexee ñu taxaw de. parce que waaw ñu missionné ñu war a missionné ko waaw. salaamaaleykum. maaleykum salaam. man kay man damaa jaaxal ko. waaw problème bi lan la. waaw sant yàlla bu bëri. wala jaay eh, woo. Oh, waxal ak man jaay wala boobu. père loolu bëgg nañu. kon c'est la chose. soo la jaay jàll. waaw moo ñu tax ceeb bu sew bi moom daal liggéenti loolu morom ne xam naa leen fi am booy seen morom jaar na oh. laa bëgg booy paay xam nga lan moo leen fi indi booy ma xam naa moom laa bëgg sant wala bu dugg bu xees ngeen bëgg wala bu ñuul bi bu ñuul bi wala bu ñuul bi wala ci ay bu ñuul bi ñu war a jox quoi daa am ñu war a missionné ni booy yow ne nga bu ñuul bi ma la ko jox amé na dé bari waaw mën naa la laaj yow mën naa la laaj leen waaw mën naa la laaj leen waaye lii moom karaw laa mën lii père bu ko lijjanti. waxal li nga waxal li nga man wax na li ko fii nii. lii lay rasuuli man leen doomu moom fii nii leen doomu man xam nga damaa màgg damaa jëm kaw mu màgg te sama dafa dafa dafa yow wutal ma ko mooy naan xam damay ci sori. léegi garaaw léegi loolu ngeen bëgg. waaw garaaw mais tamit dañu loolu la tax. man lay demee foo am dara wàcc. ñaata la ñaata la rek ñaata la. ci ngeen nag da ngeen a mën a fen. léegi xam nga def. kilo bële la ngeen 35 la. français rek avance na de woo. ah non non pour ñu bàyyi. pour ñu bàyyi. am naa dem. yow nag boo naree dëgg. non kay toog non caa toog. yàlla seetlu nañu di di vidéo yàgg. waaw léegi. ah lépp lépp ñoom ñaar cent mille la. cent mille la cinquante mille la. xale cinquante mille lañ koy joxe fii. man ak moom. waaw man ak moom. ñetti junni ñetti junni dimbali leen. yox la dee ngaa bàyyi. léegi loolu ngeen di sax. oui ma woo. léegi eh. eh yow oh. ah. da ngay doon man maa yor mission bi père. waaw ni jaay xaalis ñoom tous les événements. maanaam tous les événements. waaye dañuy mën a fay mënuñu ko booyal. waaw ñoom ñoo koy wax jaay ko mission bi. quarante mille quarante mille mën na leen jox quarante mille. waaw quarante mille lan lañu boole woon. quarante mille nag génne ko. waaw dinañ ko gaaw moo woo. xaar rek xaar sama doom. père liggéey bu yéexee mooy loolu quoi. waaw ah, xam nañ yéexuñu ci leen. ndax ñun ay mag lañ fa ñu dégg. waaw garaaw alors les femmes. mais am naa benn mission bu war a teg de waaw léegi léegi soxla naa. waaw ok waaw ñëwal si gaal bi la waaw. di ñaata la waaw. ah dégg nga saa yi am. ñun dañoo gëj a natt. ñu naan 40 mille la ko noonu. toog nañ maa ngi. waaw. mais eh sama doom man maa njëkk a dem nag. Ah, yow it nag. te la gën a diis. mooy njëkk a dem ah la gën a diis kat nag. yéen a baax na rek. ma ne la rek kenn ku ma dégg ma de. yéen da laa lay xamal. tey ngay gis ku naan nii. def nag ma man damay fulal nag. man man man nii. man kay nii laay def rek. waaw man kay li lay war a suuli. naa ko yàllax ba mu xam ne yàllax naa. lan waaw man yàlla naa dogal xoolal. naa dem nii rek. wasalaam mu may teg.